Aliou Fat ngi noonu ñoom ñaar Caatu Ngéwél ak Aliou Fat Caatu Ngéwél moom génn na saako yi de. Ngewel ak Aliou Fat Fat ñu ngi noonu ñoom ñaar jàppante nañu de lan mooy xew Joor mooy door noonu ci kaw da lay daan de laay la daan na la daan na la daanagu la wala lan caatu ngewal ak Aliou Fat Fat ñu ngi noonu ñoom ñaar war na ko ndomba li penalty la ci làmb door na ñaar ñett ma ngay door ci suuf da lay daan laa ilaaha illallah Aliou Fat Fat daan na caatu ngewal jël bu rëy jël bu amul benn werante dëggalee dëkk man sama papa Mbél waaw sama papa Abdoulaye Ndiaye sama mag booy Malika ñoom Assane Sëmba ñoom Tarko waa Malika mbooloo bàyyi ma kenn su rawatina su ma dëkk Kër Massar yëmbal benn baraat su ma limee damay billaay gis nga yow xam nga loolu yow Madou booy dañoo yaakaar ci man waaye ci Seexul Xadim yaakaar bi am ci man bu mu tax waaw loolu laay ñaan di sama grand Mor Mor Kébé Mor waa Gambie sama mag Kébé ñoom ñoom waaw ñoom mag bébé ñoom ñoo rëy nii gis naa ni jàppee ci combat bi bu baax a baax ñoom si lay aaj waaw maa ngi maa ngi sant bu baax a baax ataa ni sama bët si kaw laa ko teg sama bët si kaw laa ko teg maa daa bëgg Modou Anta baa jot dañ ma may chance waaw Modou Anta bala jot waaw dañ ma may chance ñoom laa bëgg a bëreeg maa bëgg ñu ci lekk avance bi bëreeg man comme noonu waaw sama cinq ans baax a baax bon continuer bon continuation comme noonu di leen am fekk météo bu baax si ñoom ñoom ñëpp lu ko bu ma limee damay juum suñu malaka bi yëpp Kër Massar bi naanuñu ma taxawee daal comme noonu eh bëgg yow yaay booy man yaay sama yaay